foo xam ni dangay ngay jël défense défense défense yi soo attaqué dañ lay gagné da ngay nekk ba ñu attaqué ni nga def résistance mu ne am foo xam ni da ngay daw am foo xam ni dangay ngay làq bu ci nekk boo ko defee fa nga ko war a defee ndam la ndax ku téeméer wut si nga daw bëri ci leen ci guerre ndam la ku juróom fukki di tëru nga romb leen te gis ñu la ndam la moo tax bu ci nekk boo ko defee fa nga ko war a defee rek ndam la fa nga war a dawee nga daw am na foo xam ne boo boo taxawee di jom-jom lu ñu rey la doo am ndam parce que téeméeri ëpp kenn kon waroo taxaw nekk leen da war a daw te du nekk ñàkk jom ci yow njàmbaar lay doon ci yow daw nga ba mucc de waay Aliyun jote boppam génn yonent bi war a tëb tapaat bi te mu xaw a kawe benn jigéen dama ko ni taxawal ma sëgg nga teg sa tànk sama diggu gannaaw ndax nga jot miir jigéen ji ñu sëgg mu teg tànkam ndigg tànkam ci digg gannaawu ndaw si tëb léegi moo tax ba mu ko bëggee jox loxo ñu dogal ko di yent bi jigéen du ko laal mu du ko ma laal uy ba may teg joxe sama gannaaw bu di ci teg tànkam fu ngeen ne kon yéen góor ñi da ngeen a dawoo moo tax jigéen bu bu kul si yëf rek du baax nee na yonent eh, sin ali jote na boppam yonent bi léegi tis jiriti nangoo des ci néeg ba pour euh, noon yi defe ni yonent ba léeg-léeg ñu seen mu tëdd ci lal bi ñu ne mu ngi mu ngi ci biir demagul fekk yonent bi moom dem na bi jàpp nee na Usaama ibn nga gis ni Abdullah ibn Abbas moom lañ tuddoon fuure askan yàlla dafa ubbi woon xolam pour xam-xam ci barke ñaanu yonent mu toog ci sénat ci ni ñu ko mën a tudde mooy Sénat ci jamono amirul muminina Umar bnu Xattaab te booba ndaw la ñépp di tëbb ci xam-xamam tax na mu daan wax ni yàlla xam-xamam ndaw la koy jox kenn du nekk bay mag door a jàng am xam-xam da ngay jàng ci ndaw am xam-xam di jëfe xam-xam ba ba mag leneen su ko defee kon yàlla yiwam ndaw la ko dencal bu ko wutee rek am ko gis nga nee na ñooy ñi nga xam ni ndaw yi ci seen digg gannaaw diisaayu woote lislaam ci la tegu ndaw yooyu dañu jokkale woon seen guddi ak seeni bëccëg ànd kook yonent bi ba yonent bi defal yàlla ni mu ko bëgg a defal ci kaw suuf nee na ba tey nag loolu moo nekk war a nekk taxawaayu ndaw ndaw dafa war a dëgër warul yox yox ndaw dafa war a muñ ndaw dafa war a nangoo def sacrifice ndaw dafa war a jàmbaar nee na loolu nag moom la xadara bi di nekk ci yéen yéen daayiratul muxtafin te nee na la société sénégalaise moo xadara bi ànd di nekk loolu ci yéen nekk ndaw yi nga xam ni ñooy dëgër ba lii Seydil Hadji Malick bëgg continuer ci Sénégal ànd ak muñ ànd ak sacrifice ànd ak njàmbaar nee changer yàqu-yàqu yi seen responsabilité la yéen yéen a war a seet li yàqu ngeen defaraat ngeen ngeen taxaw ndaw du nasa ndaw du bëgg noflaay ndaw toujours nay jokkale guddeem ak bëccëgam ci def lu am njëriñ ci biir askan bi mu nekk loolu la ñuy ci yéen loolu la Sénégal di nekk ci yéen yéen daayiratu Muqtafin nee na ñu ngi muñ ngeen delloo siwaat li màggat ngeen beesal ko li yàqu ngeen defar ko li tilim ngeen raxas ko li ñuul ngeen weexal ko nee na te lépp nag na tegu ci kaw diine gis nga yëngutu bu mu mën a doon bu teguwul ci kow diine rek du du satisfaire ña ña ko yëngatu mukk il faut diine jiitu yaru diine il mu jiiti yaru diine nag bu ñu nee yaru diine nag bon yu bari day dal di taxaw gis nga fexe rek ba heure bu ne nga jàpp julli foofu la yar bi commencé heure bu nga respecté ko rek nga respecté ko nee il faut ngëm ak jikko ngëm ak jikko ñooy ànd parce que dama doon waxtaan ak benn kilifa bu yàggul mu ni ma est-ce que kilifa nga sax bu xonq la du kilifa réew mi ci beneen réew laa dem mu wax ak man mu ni ma est-ce que Sénégal ndaw yi ñu ngi dugg dans les confréries mystiques ma ni ko waaw du baax sax ma ne ko waaye nag ñetti façon lañu ma ni ko ki nga xam ni dafay toppandoo moroomu moroomam rek ah man kat demoon naa dëkk sàngam jël naa fa tariixa mu ni mantam bu dimanche ma dem jëli ko ni ko kooku dafa toppandoo ma ni ko ak ki nga xam ne daf ko def mod modd dafa def tariqa modd par exemple Dakar léeg-léeg gis benn xale bu jigéen bu sol yu weex muuru yëre kurus naan dañ ma invité tey hadratul jumaati kooku dafa def loolu muy modd tariqa muy modd tariqa du modd ma ni ko ak ki nga xam ne cofeel moo ko tax a jël boobu nag la ñu gën a nga xam ni sopp tariqa bi ak sopp li mu bind ak ni mu jaare yoon ak fi muy jaare nit nga dugg ci boobu la ñu gën nga def ko modd wala ngay toppandoo waaye nag ba tey baax na su ko defee euh, ñu yaakaar ngëm bu ànd ak jikko ni moom la ñuy nàmp ci biir xadara bi ndax loolu la ngëm gu ànd ak jikko ma wax ko ni ko keroog mu ni ma est-ce que waru leen wootewaat pour firil nit ñi mysticisme ak lan la ma ni ko tasawuf ñett rek la xam-xam jaamu yàlla ci niveau ba mu gën a kawe defar sa jikko kot yi si des yëpp nit ñee ko ci dugal waaw kaale yu rëy yéeg kurus yu gudd yéeg mbubb yu yaatu yeeg jàllabi yu doore yeeg yooyu yëpp noo ko ci dugal waaye moom tasawuf ñetti rek la ñetti rek waaw xam-xam mënoo nekk suufi yu te amoo xam jaamu yàlla dangay ngay jaamu yàlla boo nekkee suufi ci niveau ba mu gën a kawee parce que yonent bi da ci benn xadis nee na gis jullit bu julli ba noppi nga jël julli ga posé ko ak laafu yoo laafu yoo julli ga laafu yoo gën a diis julleem nga gis jullit bu julli ba noppi nga jël julli ga posé ko ak jabalu Uhud ba ca màkk julli ga gën a diis jabalu Uhud ñooñu bokkuñu niveau bu ñu jullee su ko defee na kon nee na loolu nag du mën a am lu dul ngeen boole ci seen programme seen programme mu yar diine joo xam ne dañ koy pratiquer mais duñ ko wax rek diine kenn du ko wax dañ koy pratiquer diine pratique la ne si ngeen defee ci seen programme yàlla diine ji ñuy pratiquer waaw kañ nee na moo nekk priorité ci seen programme nekk priorité diine ji ñuy pratiquer mais du nekk diine ji ñuy wax wax sottal dara naa ko wax toujours xale yi dem leen liggéeyi te bu leen bokk ci waxkat yi nekk leen jëfkat te bañ a nekk waxkat waaw loolu ñu ngi leen koy dénk yéen ñëpp sëriñ baa ngi leen koy dénk bind na ko bàyyi fi bu dul benn du ñaar nee ndax xeet wu nekk mu jëm mu nga dépendre ci rek yar ba ñu yar ndaw ya nee na kon nag na ngeen dolliwaat effort continuer di dox dox boo xam ne dafay ànd ak pastéef ngeen def ko ndànk ndànk nag parce que koo gis mu am échec mooy naa am résultat tey naa am résultat tey yàlla may loolu kenn naa dox tey am résultat tey da ngay am échec boo bëggee am échec da ngay dox ndànk rek pas yu sûr nag yu dëgër waaye nag xam fi nga dara du la fa mën a taxaw a ñëw nee su ko defee ngeen continuer dox bi ànd ak passé te te te teg seen tànk tegin bu dëgër rek bañ a dellu gannaaw nag nee na ngi leen di woo ci ngeen dolli xam-xam ngeen sàkku xam-xam gis ngeen xam xadara bi xadara xam-xam la di xadara wax boroom xam-xam la ko sampe woon Seydil Hadji Malick moo tax daf daan xëy di jàngale suba ba jant su taalibe yi ñëw ku ne indi sa liif mu wax la la ca nekk di ko tubaab yi wooyee ndar di ko dégg nii da ngay jàngale ca njaar la waaw waaw di ko looy jàngale ku indi si téere de la ca nekk ci yàlla dana la ko wax waaye woowu kenn nag ni ko kaay ma jàngal waaye ku indi si téere la ca nekk naa la ko wax noonu la doon def ba xamal ñëpp nee na fu ngeen toll itam na ngeen di dolliku xàmmee nee ndax ci xàmmee li ñuy tudde civilisation ci lay jógee civilisation xamul civilisation du jël mbubb mu rafet sol ko jël écharpe bu rafet boole ci jël dàll yu rafet di cal loolu xay la xay civilisation mooy li ngay def lu mu mën a doon rek nga xam na nga koy defe loolu mooy civilisation nee ci am xam-xam dolli ko xam-xam foo toll loo xamul rek nga jéem ko xam nee na ci ngay mën a ame nag civilisation li ñuy wax xadaara nee na te ci xadaara ci ngay mëna a buure nag buure sëriñ bi nee na mu ngi leen di woo yéen ñëpp ci ngeen bennoo ngeen nekk ay mbokk ngeen nekk ñu solidaire leen ndax solidarité ak mbokkoo ak bennoo mooy secret bépp réussite ci jëf joo xam ni ay nit a ko bokk ne mi ngi leen di wax ci ngeen dundal jàkka yi di ci jullee doote nekk jeune doote sol su mbubb mu rafet doote dem seetaan ni sa football ndegam danga ko bëgg a seetaan waaye del dem ci jàkk ji sëriñ bi nee na fi ngay solee sa xaftaan bu rafet wala sa costume bu rafet ba boo dajee ndaw si mu la téye bu wone mais yàlla sa maam it foofu la la soxla yàlla sa maam foofu la la soxla na ko jox wàllam moom itam moo tax mu ni kon nag na dundal jàkk yi innama yaamuru masajid allah man amana billahi wal yawmil axir yàlla dafa tagg ñi nga xam ne dañuy dem jàkk nee na ak zabaya ngeen dundal ko di salawaat yi ay naafila wal azkar ak zikar wa tasbihaat ak sàbbaal seen borom nee na mi ngi leen di woo ngeen téye ci principe bu diine l'islam yi gën a kawe ndax loolu alxaaji Malick indi jox leen segg diina ba mu sell ndax diina dafa yaatu lu nekk nga ca ku bëgg tilimal mën nga tilimal ku bëgg yàq diina mën nga yàq diine waaye diina ji sell nag moo moo yomb mu ne ak principe bu tariqa Cheikh Ahmadou Tidiane te xam ngeen principe bi nee na ak discipline xadal Seydi Hadji Malick neena ngeen def ko pas bu dëgër ak wolente bu dëgg ak passeef bu yaatu nee na ñu ngi leen di wax xasida bi di leen ko yóbbale ci seen yoon woowu moom Serigne Cheikh mu ni maa ngi leen di xamal yéen xale seen yëkkati mi ngi ci seen aju si seenug sellal rek na mu toll seen sell ak seenug sellal sell sellal nee na maa ngi leen di dénk ñett nee na ñett yooyu su ngeen ko sàmmoonteeg moom seen dox jëm fa ngeen jëm dafay dafay yomb bu ni maa ngi leen di dénk aussi ku bi te addu bi na ngeen am yar na ngeen nekk ñu discipliné ndax nit ku discipliné lu mu am dana yàq wata mu ni na di nekk ñuy xalaat te ngeen di xóotal seen xalaat bu ngeen dee gëstu ñu ko seen maam yi daan defe nee na doomu aadama ci anarchie ci lañ suufee lu dundam anarchie du du réaliser dara rabax rabax dugg génn yuuxu soow jaxasoo tàccu fottatu du la réaliser dara nee soo indee anarchie la nga amoon ci lu baax day mujj sànku anarchie lu mu dugg rek yàlla tey lu mu dugg rafetal ko moom la yonent bi wax nee tey lu mu dugg rafetal lu mu génn ñaawal ko nee na sëriñ Cheikh ay wax de ma saanukum mislu sakinati fi dujar ma sha'nukum mislu rida bi hutafi seen lëndëm yi ngeen di dox tey moo leen koy leeral la nee yuuxu yi ngeen di yuuxu fexe ba gërëm loo kontaan loo yàlla moo ko gën mu ni ñu bari ci ndaw ñi gumba ak réer moo ëpp ci li ñuy jëfe ci seeni milliers yi nee na gumba ak réer nag moom ku ne xam na boroom fa mu jëm ci biir kàmb ga rek mu ni na moytu sëriñ sëriñ bi sëriñ sëriñ bi daal di kaalawu xaat daal di wut kurus ñi ma def maa ngi def kurus sëriñ sëriñ lu baaxul nee na mu jëm toujours sëriñ jëm toujours ci suuf rek mujj nekk ku doye bi su ko defee kon nag mu ne na am métier na xam lu am métier kenn ku nekk ci yéen na seet lu mu mën def rek mu def ko gi nga coow du defar réew liggéey mooy defar réew waaw nag léegi coow la bëgg a defar réew koo gis mi ngi soow koo gis mi te boo ko waxee looy soow du la ko wax nee na te ngeen dox te ngeen jëf jàng ngeen métier nga sëñ Babacar Si ba mënu xamee ne seen diine seen tariqa lu mu ca seen métier seen métier ndax boo rafetalee sa diine rafetal sa tariqa te amul métier da ngay mujj doye ndax da ngay mujj di wël di laaj di laaj di sonal nit te boobaa da leen di soof kon na nga am métier lu mu seen daye ngeen bokk ndey ak waxul ngeen dajale xaalis indil ma Tiwaawan ngeen bokk ndey ak ci diini ak ci tariix toujours danaa wax ne keesu sëriñ bi moomu ko daye bee ko moomu ci lañuy ñuy ku ci am ordonnance te amoo loo ko jënde ñu dindi ci kees gi jox la ku ci am ngénte te amoo xar ñu dindi ci kees gi jox la kuñ ci tàggee sa mbokk fu sori te amoo paas ñu dindi ci jox la keesu bi pour dimbalante daayira da ko moom ñun nag ñu ñëw pour ko exploiter nit ñi rek nee na na ngeen seet yàlla mu ngay tagg liggéeykat yi daan boobu lislaam ñëwagul ñaari euh, tukki arab yi ñaari tukki lañ daan tukki pour pour pour jaayee jënd waaw moom la tuddi ca suratu Quraysh ila fi Quraysh ila fi rixlata chita wa sayf ñaari tukki yooyu ñaari tukki rek lañ daan tukki ci la ñuy defar seen ñaari période yooyu nee na bu ngeen ci jógee nag ngeen di ñaan buur bi nga xam ni ku ko ñaan lu may nga ñaan ko leer ñaan ko tawfiq walla ma muy bayti yu mu defoon yóbbante ko ni lañ leen ko wax nag ñu ngi leen di nuyu yéen waa Dahiratoul Muqtafina nuyoo baay ak doom di baamu itam santam ci képp koo xam ni lii mu wax mooy si itte ñu boole ci itam suñu cant ci képp koo xam ni yëgaloon nañ la bés bi nga ñëw teew yal na yàlla mayaat ñu teew fi déwén te déwén daqare yal yàlla def ci réew mi jàmm yal yàlla jàmmal suñu kilifa diine yi yal yàlla jàmmal suñu kilifa àdduna yi yenn yàlla indi ay xéewal yu baree bari xéewal yoo xam ne ci kaw suturaat jàmm lay tegu ñu ngi leen di gërëm di leen sant te di leen jéggalu jotaayu yàgg yi di leen wax kullu aamin wa antum bi alfi alfi xayr wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, dafa am suñu doom di suñu xarit bu ma xale yi yónnee dama leen fàtte tudd noonu tudd naa ko dañ ko déggul muy suñu doom Malick mbay ku nekk xam na ni suñu collaborateur la ci lii ñu doxal danañu ci jox xalaat lu mu ci gis te mu jaaxal ko it dana ñëw wax koog ñun ñu expliquente ko su ko defee kon nag tabaarakallaahu ñu ngi sant ñëpp ñu ngi sant média yi rajo yi fi teew yëpp euh, ak nañu si mant toll nañu mant day ñoom ñëpp jataay baa ngi leen di sant gannaaw loolu suñu bàyyi alaaji xalifa Kébé dafa am le vingt-huit décembre ca Thiès euh, bésam boobu muy mottali alquranam bi ñu ngi ko jàpp le vingt-huit décembre ca Thiès noo fay teewali xadara Seydi El Hadji Malick euh, ku man na nga ko teewee ji bés boobu gannaaw loolu sëriñ Maodo Sy Abdoul Aziz téléphoné na ma di jéggalu mbooloo mi di leen sant di leen ñaanal yàlla di leen xamal ni absence rek nekkul ci réew mi moo ngi ci biti réew ngir ay itte muy balu ñëpp nag ci ñàkk bi mu ñàkk teew waaye teew na ci ndax ñun ñi fi teew moom Serigne mbay Serigne mbay Abdoul Aziz ñoom ñëpp laa fi toogal dañuy xam ne rek fukk ci kenn teew ñu ci dis ñëpp mën nañu absenté ndax bu dee Serigne Mbaye Abdou fu mu teew ñun ñëpp dafa teewal bu dee si Xaaji Malick fu mu teew ñun ñëpp dafa teewal bu dee Serigne Mbaye Mansour mu teew ñun ñëpp dafa teewal kon fii ma toog ñoom ñëpp laa fi teewal tabaarakallah maa ngi teew maag Cheikh Tidiane doy ah Cheikh Tidiane Sëñ Mansour ngi nii teew su ko defee nag kon ñu yëgal leen loolu ni euh, alxaaji Cheikh Samb itam mi ngi yëgle gàmmoom 30 euh, novembre waaw 30 novembre mi ngi koy yëgal ñëpp ca Mbour na ko daan defee rek waaw su la présidence effective de Serigne Abdou Aziz Sy Al Amin ci ni mu ko waxee di ko ak fédération Mbour bu daayira ñoom ñëpp ñu àndandoo di ko yëgal mbokku taalibe yi waaw gannaaw loolu nag sëñ Moustapha mi ngi ñaan ngeen bañ a dem toog xaar añ yi ndax yéen tax ñu togg ko seen teraanga la teraanga xadara bi la te nit nag buñ ko teralee bu lekkul it na gis teraanga ba rek ngeen xam ni seen teraanga la ngeen toog ñu servir leen ko nu mu gën a rafete ngeen añ door a dem ndax ku nekk xam ne ni fu ñu toog ci suuf ba léegi soxla woon na lu mu mos euh, su ko defee nag ngeen toog ñu indi leen añ yi ngeen bañ a dem ba ñu servir leen ko ba noppi sant ñëpp nag ci seen taxawaay ñaanal leen yàlla li ñuy ñaanal suñu bopp yàlla nañu yàlla boole defal jàmm yàlla boole ñu defal yiw yàlla yokk sutura lislaam bi te nu dugg ci biir ñu ngi koy ñaanal ñëpp su ko defee kenn ku nekk ni jàng faatiha Thank Sidi Ahmed Sy bu Seydi Mouhamadou Moustapha mi nga xam ne mooy taawu Sëñ Babacar Sy moom itam ñëwoon na dama ko gisu woon dafa ñëw fekk maa ngi woon def conférence am fa toog rek moom itam ñu ngi koy nuyu di ko wax dalal jàmm ci sa xadara ci sa biir njàmm conférence de Serigne Oumar jàngat salaatul fatiha ñetti yoon jàng ayatul kursi jàng suuratul ixlaas tëjewaat ko salaatul fatiha yal na yàlla may kenn ku nekk la mu bëgg ci lu baax ci barke xadara bi ak barke bis bi ak barke weer yi di commencé at mi di commencé tey di asura yal ci yàlla digg faj aajo ñëpp aajo bii ak aajo bi ci yal yàlla dëgg ci indi ay yomb yomb ci réew mi yàlla dëgg ci téye lan ñu nit ñi ba ñuy wax lu am njëriñ te bañ cee wax lu amul njëriñ waaw wax lu amul njëriñ baaxul bu ko defee maa ngi proposé ba tey bu ñu ko mënee ñu def silence un mois silence cinq minutes wala deux secondes man un mois laa woote ci réew mi ñu téye ci suñu lami maanaam wax xam ne ni kenn mënul toog weer doo wax waaye liñ ci jublu mooy doo wax lu dul yiw waaw un mois yoo xam ne doo wax lu dul yiw ñu jéem ko exercé ba xam kenn ku ne yaay nekk sa maître bopp waaw doo dépendre si kenn yaay jéem a def silence un mois te mooy weer woo xam ne doo wax lu dul yiw yiw rek ngay wax ñu seet ba xam gannaaw loolu ban résultat la ñu yàlla defal ci Sénégal kon nag ñu def ñaan bi fatiha salatu fatiha ñetti yoon ayatul kursi salatul ixlaas tijjiwaat ko salatu fatiha ñu dugal ci suñu lépp nag yal na lépp jàpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak barke suñu kilifa yu baax yi ñu am يا ولي